sama ñaari waat ci sama leen ko borom borom mo yow la ñu eh dama ne ngeen nama ñaari baat ci islam oui ma ngay nee na dégg naa ak ay nee nañ yaa xam ne daal affaire bi tey ci la marqué naa la fii xale baa ngi nii xale yi daal xale kan ca kaw. nga ne pasar pasar woo sa bopp te kaw te kaw a kaw. xam nga ne asaalo woo sa bopp de. na ko defee mbaa bàyyi yu ko ko leer ah. aji doo jëkkër jëkkër. waaw waaw na ko defee mbaa ñu bàyyi. waaw. Adiós. yàlla sëy bi barkeel ci darajay Seydina Muhammad aji maa ngi ñaan yàlla nga taawloo góor ñu tuddee ko Rasulullaay salaamun kaan fi miski yamsi wa yahtadi madame Sambalaay woo aji soppa ji Seydina Muhammad mbaax gi ci yow kada gi ci yow maana gi ci yow nga dëkk ak yu bëri mu rafet lool aji yaa yor maa ngi lay ñaanal ci barke Seydina Muhammad yaw la lan na nga taawloo Rasulallah déggal Sëriñ Tuuba bàyyi bés baara maami den ak Cheikh Sëriñ Bamba nee na Seydina Muhammad huwa nabiyu ورسول والخليل a الخبيب دفني من مقل سيدنا محمد أدبنا على ويل xamoon nga ni mbéyaa bi dina teew ñëpp teew ma taggal Seydina Muhammad ajilaay wa i bañu neena na nga yaa tànn bayti loxo yi bañu neena na nga tànn yaa tànn ajilaay woo bañu neena na nga yaa tànn bayti aji tànn Makka Madina waa xam ngeen lu ma tàgg yonent bi aji mii dafa dëkk man nekk sama kër ànd ak Sénégal Média muy xale bu yàgg sama doom yëpp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 boo gisee tey sax météo bi dama la laaj ba ay ay waaye boo gisee ay yëpp ay kenn des yaa leen ko ji melu bu doxee ne galoo ngi nii maa ngi nii maa ngi woon yàlla ngi nii amaata ngi nii doo ngi nii deenee ngi nii vidéo bi nii ñëpp teew na ñëpp teew na li ko waaye ngi noonu. mu wax nga tontu mago aji dugg ci caaya boo xewlee doo gis ñi bi nga nekkee ci milieu bi ak léegi neexa ànd la ñu xam lu mu la jame yaru nga yiw nga kenn xamulu la dara lu la naqari ak lu la neex ñu mën koo seede boo nekkoon ci milieu bi banque am fit bu wax ko tontu ko neexa àndal liggéey boo xewlee doo gis ñi li tax ñam ñu ay seen yi jëlee yaa leen ko jiñal ñun kenn jaraluñu wax lu dëgg ci yow ñu lay na liñ gis ci yow lan la waxal yaru fonk sa liggéey toog di nga toog ba jëkkër fekk la ñi ngi lay ñaanal sa sëy bi na ci yàlla de barke sa ga ak sa borom kër yàlla na leen yàlla jubóole yal na lay yàlla na ko yalla may lu la yore sëy bii yàlla nañ sa sëy bu njëkk yàlla nañ sa sëy bu mujj ci barke Serigne Touba. ñun duñ takk kenn waaye nag sa jikko lan la wax lii ma wax bu bu duuru jëloon mën na koo wax. ramal la magale boppam. waaw xam nga loolu. ay kàddu. di aji. waaw. aji diiraa li nekk di liggéey. waaw. mosuma def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 bu leen sor ko sor ko kàddu yi maas may leen ma ma bare daan la daan la bu leen sor ko sor ko kàddu yi maas bu leen yàq xew mi bu leen yàq xew mi ndox leen dee alam na ko gërëme coy aji yàgg na naa ñu bari waaye tey bu ko àddina xamee waaye attaque ko Dakar la loolu nag kon ko yàlla mayee bis bi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 ngir yàlla doo may ma taxaw ndax ni nga ko yore ñu noo ko doon téye kenn du ko gis kàddu yi may wax kàddu yi waaye nag attention doo ko maam waaw waaw ngir yàlla wax leen da ko am seet xam nañ ci dara bu juddu jotee fu ne lay gunguni teg na ci ñaari junni tegaat na ci ñaari junni te nee na buy dara yegg si bu sanan daf fi indi ay million tegaat na ci yeneen ñaari junni muy juróom benn junni waaw ayca ñëwal ndooleem nee na teg na du juróom benn junni léegi lii dañ ne koo mus bëgg soo gis ku dugg yëpp moo koy fay rama aji bu la yëgee bu la bëggee bu la safoo bu la faalee ba magale la bopp li taxoon mu jël la di la magale boppam lay jël nee na du taal ko ba pare du teraanga yi du kado yi mais yëg-yëg bi jamono ji ku ne xam ne dafa am ak dérangement bu ko def ñëw bàyyi say yite def say teraanga mais yow yaa baax bu ko naaw de parce que ñu ngi ko ñu dem. ak ñu dem ñu ñëw ñëpp galo mi ñu ne Kalidou mi ñu ne. ñëpp ñëw nañ Nabou Ngom mi ñu nii. ñëpp ñëw nañ. Bidon mi ñu nii. ñëpp ñëw nañ. waaw ma fi yaa. Aïssa mi ñu nii. ñëpp ñu laale ñu nii gis na ñëpp. Seen ñu nii borom Sénégal fële. Fatima mi ñu nii. ñëpp ñëw nañ.

yaa ngi rama danaa nga jéewal maa ngi ma teewal taxaw fii wax lu baax te kenn ku ne xam na ne waxtaanu jéer ak jéewal fa muy mujj mooy may ma xaalis. waaye ak lu mën di am nabu nga ma ngi nii ba ma woy wule nabu bu waalee ngi nii. dafa am loo xamante moom mais xam nga nee na bu dara yegg

Thank you.